ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. nee na ñu ngi di nuyu bu baax a baax. yéen waa centre bi nga xam ne. yéen waa centre bi nga xam ne. yàlla dafa def. yàlla dafa def. ma amee xalaat bi. bi mu amee xalaat bi. waaw pàcc bi newoon fii ci sama wetu kër. pàcc boo xam ne fii la nekkoon ci wetu kër. di pàcc pàcc barkeelu. muy pàccu barkeelu. ñu ñu di ko jaay. ñu di ko jaay. ma jënd ko. nee mu jënd ko. bëggoon ko dolli ci biir kër gi. bëggoon koo dolli ci biir kër gi. ndax xataayu kër gi. ndax xataayu kër gi. waaye yàlla def ci sama ci xalaat ci biiri xalaat rek. waaye yàlla def na ci xalaat yi muy xalaat nag rek. tabax ko. mu tabax defar ko. ginnaaw bi ma gis dëkk bi. ginnaaw gisal boppam dëkk bi. ni bindoo. nii mu bindoo. ndax ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk liggéey. ndax ñàkk liggéey gi ne ci biir dëkk bi. ndax commerce rek a fi nekk. ndax seetlu na commerce dong moo la bi. te commerce bu kese. te commerce bu kese. du suqali am réew. du suqali am réew. ndax bu ñëpp dee jaay. ndax kat bu ñëpp dee jaay. kon kuy jënd du am. kon day mel ne ab jëndkat du am. ñi ñiy jënd ñoo war a ëpp ñuy jaay. ñiy jënd waxtu wu ne ñoo war a ëpp ñuy jaay. looloo loolu. loolu moom firndeel loolu. mooy suñu kilifa gu tedd ga. mooy suñu kilifa gu tedd ga. Serigne Saliou. Serigne Saliou. yàlla suñu borom dolli ay leeram. yàlla suñu borom dolli ay leeram. li may wax sëñ Maxtaar Jaxate mi seerale ci. nee wax nag sëñ Maxtaar Jaxate ndax ku daa xalaatal lu sori dëkk bi la. ndax ku daa am xalaat yu sori la ci dëkk bi. yoo xam ne accès guñ ci ba nëgën. yoo xam ne ba léegi nii accès guñ ci. zone industrielle bi mu taxawaloon. zone industrielle bi mu taxawaloon. te tegoon ci tegoon ko ci loxol sëñ Ahmad Badawi te tegoon ko ci loxol sëñ Ahmad Badawi mu Cheikh Mamadou Fadel moom Cheikh Mamadou xalaat boobu moo taxoon xalaat boobee moo taxoon ndax xamoon na ne ndax xamoon na ne du ko fekk ci kaw suuf du ko fekk ci kaw suuf waaye lam ci jublu woon waaye lam ci jublu woon mooy ay ati at ca kanam mooy ay at yu bari ci kanam Touba dana àgg foo xam ne. Touba dana àgg nit ñi buñ jàngee. nit te amuñu liggéey it. te amuñu ab liggéey dana métti ci ñoom. dana génne ci daara yi. ñiy génne ci daara yi. te formé wuñ leen. te formé leen. dana métti. dana métti loolu bokk na ci jafe-jafe bi réew mi gën a am. loolu ci jafe-jafe bi nga xam ne moo am moo am ci réew mi. ci ci biir xalaat yooyu nag. ci biir xalaat yooyu nag. ci laa xalaate woon lii. ci la xalaate moom Cheikh Mamadou Bassir lii. ndax lii nga wax. ndax lii wax. lu ne da nga koy tàmbalee ci sa bopp rek. lu mu mën a doon nag dañoo xam mbay ci sa wewu moo tax kër gi. moo tax kër gi. ma def ko xam nga da ngeen tuddee waqf. man nag addee Sëñ laa ko def. moom nag defu ko waqfu de addee Sëñ Tuubaa lépp moom la. ndax lépp lu may def rek. ndax lépp lu muy def rek. loolu laa ciy fas. loolu dong la ciy fas. ba ci weeru koor sax moo ko wooree. ba ci weeru koor sax nee na bu koy woor. xam nga loolu ndigal la. xam nga loolu ndigalul yàlla la. julli gi. julli gi. moo tax ñu bind la. moo tax ñu bind la. waaye la nga ciy jëlee ci tuyaaba nag. waaye la nga ciy ci tuyaaba nag. sañ sañ ngaa seet na koy def. sañ ngaa seet nag na koy def. ma ne lépp lu ma def ci lu baax. alxuraan sax bu ma ko jàngee. alxuraan sax bu ko jàngee ba noppi. addiyee Sëñ Tuubaa la ko. addiyee Sëñ laay fas loolu loolu fas sama lépp. sëriñ bi daal day jaamu yàlla di ko sant Sëñ Tuubaa. di sant damay jaamu yàlla. day ngir xam ne moo tax suñu borom bind ma. ngir xam ne moo tax suñu borom bind ko. tax yàlla sàkk ñu. moo tax yàlla sàkk ko. lii tuyaaba nga xam ne yaa moom nag. bi nga xam ne yaa ko moom. nga xam ne yaa ko moom. yaa ngi ciy séntu pay. yaa ngi ciy séntu pay. loolu nga sañ a joxe addiya. nee na loolu la jox sëñ Tuubaa addiya. loolu la loolu nga sañ a joxe addiya. nee na loolu la sañ a joxe addiya. waaye jaamu gi moom su ma wuñ ko moo tax. nee na jaamu gi sax moomu ko. ndax ñu bari dañ koy jaawale. nee na ñu bari dañuy war a jaawale. te Serigne Touba. ne Serigne Touba. lépp lu ko nit di jox. lépp lu ko nit di jox. daa war a sell. daa war a sell. te Serigne Touba ku bañoon ko ko bokkaale ku bañoon bokkaale la. te Serigne Touba nag ku bañoon bokkaale la ku sa bokkaale ci kanamam. ku du la bàyyi nga jàll. du la bàyyi nga jàll. daan la daan la fem fa borom bis bii di Cheikh Abdoul Khadir. borom fi mu ci àggoon. fi mu ci àggoon. mënee su ko sax sax nettali. li ñuy tuddee shirka. li ñuy tudd bokkaale. nga xam ne moo indi coow lu bari fii na xam ne coow lu bari loolu ko indi. ci coowul tasawuf sax. tasawuf sax. ak ñi ñi ñi ñuy juyal ci xalaat. ak ñi nga xam ne dañoo juyal moom ci ay xalaat. sëñ Abdou Khadir ku bañoon cirque la. sëñ Abdou moom ku bañoon cirque moo tax man dama koy wattandiku nag. nee moo tax moom day wattandiku lool lool. ndax ndax suñu borom ko sëñ Abdou Lahad waxoon na ne. ndax kat Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne. dana dana buurub àdduna. nee na buurub yaar rek la bañ. yaar rek la bañ. mooy nga bëgg a doon buur ne moom. nee na nga bëgg a doon buur ne moom. wala nga yéene nguur ga keneen ku dul moom. wala nga yéene nguur ga keneen ku moom. nee képp ku ko def ñoom rek. nee la déclaré guerre. danañ la nag. liñ koy bañ bañ. nee na ko buurub àdduna bañ bañ. yàlla yàlla mi sàkk ñëpp moo bañ. yàlla mi sàkk ñëpp moo ko bañ.

di di wane xërëm. di wane ak xërëm. ci yoon wi. ci yoon wi. bay bay jëfandikoo baat boo xam ne. bay jëfandikoo baat boo xam ne. day indil jam-jam yoon wi. day indil yoon wi ak jam-jam. ndax ki koy dégg. ndax ki koy dégg. te aw dégginam soriwut. te aw dégginam soriwut. mën naa yàq pasteefam. mën naa yàq pasteefam moo tax sëriñ bi. moo am na ci mbindam yi. am na ci mbindam yi. dama ne ashakku fi haada kufrun. dane ak sàkku fii haasa kufr ku ko sikki sàkk nee ku ko sikki sàkk weddi yàlla weddi nga yàlla moo tax loola moo tax bañ koo gis sax day gën ci yow bañ gis loola sax daa gën gis ga kon yéen ñi nga xam ne yéen fi daje kon yéen ñi nga xam ne yéen fi daje kon moo tax at moom yàlla dafa def moo tax at moomee yàlla dafa def bi muy noppi bi muy noppi soxna Roqaya Daba Bousso. soxna Roqaya Daba Bousso. suñ borom jëlee ko fi. suñu borom jëlee ko fi. yal na ko ko suñ borom dolli ay leer ak xéwal. ci laa ko ko tuddee. nee na ci la ko tuddee barab bi. ngir sant ko ko. ngir sant ko ko. ak delloo ko ko ak cant. ak delloo ko ko it nag ak cant. ak di ko ko fàttalikoo. ko waaye yëfi Sëñ Tuubaa waaye nag yëfi Sëñ Tuubaa yëfi yoonu Murid la. yëfi yoonu Murid la. ndax 2014 ak léegi. ndax 2014 ak léegi. ren la ci juróom-ñetti at. ren juróom wala juróom-ñaar. wala juróom-ñaar. nañ ci juróom-benn junni ak juróom-ñaar téeméer. te kat formé nañ ci juróom-benn junni ak juróom-ñaar téeméer. ci ay nit. ci ay nit yu teg juróom-ñaar fukk juróom. yu tegal yu tegal. te te fas na yéene. te fas nañ yéene. ci niñ ko xalaate ci niñ ko xalaatee. mu gën a mu gën a kawe. mu gën a kawe. ñaan nañ yàlla balaa déwén. ñaan nañ yàlla balaa déwén. mu nekk lu am lu am. mu nekk lu am. ndax loolu ñépp ko war a def. nee loolu kat ñëpp ko war a def. ndax nit ñi kat sonn nañ. ndax nit ñi sonn nañ. te ku amul liggéey. te ku amul liggéey. doo moom sa bopp. doo moom ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. ba muy woote jumaay njaareem ji. ba muy woote wax ju gudd la. wax ju gudd la. waaye bokk na ci lam ca wax. waaye bokk na ci lam ca wax. da ngeen ba moom seen bopp. na ngeen fexe ba moom seen bopp. da ngeen fexe ba ñàkk seen bopp. na ngeen fexe ba ñàkk seen bopp. lu ci ne nag mu wax la koy maye. lu ci nekk nag mu wax la koy maye. ak la koy xañee. ak la lay xañee loolu. lay xañee loolu. loolu li ñuy tuddee liberté. li ñuy wax liberté. mooy moom soo bopp. mooy moom sa bopp. nee bala koy nit kee mën a def. nee na bala koy nit kee mën a def. day mënal boppam. boppam. ndax ku la mënal sañal la. ndax ku la mënal ku ne sañal la. te bu yàlla yàlla na yegg kala war a sañal. te su nag yàlla na doon kala war a sañal. kon ci xalaat yooyu rek. kon mooy tariixa bi nga xam ne. mooy tariixa bi nga xam ne. dañoo boole jaamu yàlla ak liggéey. dañoo boole jaamu yàlla ak liggéey. ndax mu tasawufoon yu jëkk yi. ndax mu tasawufoon yu jëkk ya. dañoo dañoo jugoon rek dëgmal seen borom. dañoo jugoon rek dëgmal seen borom. wàcc àdduna. gannaawal àdduna wàcc ko. te wabtaxi fi ma aataaka allahu daara al axirata te wabtaxi fi ma aataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min adunia wala tansa nasibaka min adunia kon kon lu ci ne daa am wàll lu ci nekk daa am wàll kon yéen ñi toll ci liggéey kon yéen ñi ci liggéey te yàlla dogal ngeen tàggatoo fii te yàlla dogal ngeen tàggatoo ci barab bii ku fi bàyyi ko ku bàyyi ko na nga jiital yitte na nga yitte te xam ne te xam ne xam-xam dara ëpp ko solo. dara ëpp ko solo. ndax mooy jiitu. ndax mooy jiitu nag. iqar bismi rabbika lasi xalaq. iqra bismi rabbika lasi xalaq. mooy li njëkk a wàcc ci alxuraan. mooy li njëkk a wàcc ci alxuraan. kon Serigne Touba. kon Serigne Touba. wax na ne waman nahaakum an taallumi. nee na waman nahaakum an taallumi. fa huwa xalifatul lain al mujrim. fa huwa xalifatul lain al mujrim. képp ku leen di tere xam-xam. képp ku leen di tere xam-xam. mooy ki wuutu Iblis ci kaw suuf. mooy daal ki wuutu Iblis ci kaw suuf. wa min wa min makaa'idi l-la'iini l-mujrimi. wa min makaa'idi l-la'iini an ta'allumi. saddun bokk na ci pexe seetaan yi. na bokk na ci pexe seetaan yi. mooy fexe dox diggante murid bi. fexe ba dox diggante murid ak xam-xam ak ko ko ko ko woyofalal. kon na ci ñëpp gën a góorgóorlu. kon daal mi ngi ñaan ñëpp gën cee góorgóorlu. rawatina kii fi nekkee Serigne Touba. rawatina nag kii fi nekkal Serigne Touba. ndax ku fi nekkal Serigne Touba. ndax ku fi fu sab xol fu fa la xolub taalibe yi jëm. fa la xolub euh, ngeen li ci sëriñ bi wax. te dégg li ci sëriñ bi wax. ci soñña ji. ci soñña gi. ci université bu rëy bii nga xam ne. ci université bu taxawal na ko. taxawal na ko. te sëñ Abdou Lahad Ka mii. te sëñ Abdou Lahad Ka mii toog. sëñ bi teg ko ci loxoom. sëriñ bi teg ko ci loxoom. mu di ko liggéey. mu di ak ñeneen ñu ngi ko seqal. ak ñeneen ñu ko seqal. tey ci bëccëg rek. tey ci bëccëg rek. maa ngi ci waxtaan ak sëñ bi. maa ngi ciy waxtaan sëriñ bi. ñuy waxtaan ñuy wax ci tolluwaay bi. muy ak ndoxum dëkk bi. ak ndoxum dëkk bi. ma ne ko de. ma de. bi nga toogee jataayu bi sëriñ Touba. ci tamxarit ji la woon. ci tamxarit ji la waxtaan la woon. booba ay waxtaan la woon. mu ne mu ne wii de. mu ne sombu wóoree wii de. nekk ci sama kanam. nekk sama kanam. muy université bi. muy université bi. bala maa tal dara. bala maa tal dara. day féete ba noppi. day féete ba noppi. waaye bu jeexee nag. waaye bu jeexee nag. lii sama yitte. lii sama yitte. mooy ndox mi. mooy ndox mi. defaat ko yitte. defaat ko yitte. comme ni ñu yitte université bi. mu ne mu ne nag bala bala cee bala cee mën a dugg nag. mu ne nag bala cee mën a dugg. université bi day àgg. université bi moom day àgg ba noppi. bañ tàmbalee jàng. bañ tàmbalee jàng. ba mu xam ni muy doxee. ba mu xam ni muy doxee. ba lépp leer ci boppam. ba lépp leer ci boppam. daal bi ma ko waxee léegi matu ñetti waxtu. nee na ma ko waxee loolu ak léegi rek matu ñetti waxtu. kon tontu la ci lii. mu def moom. kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax. kon daal nee na mi leen di ñaanal bu baax. ngeen gën a góorgóorlu. ngeen gën a góorgóorlu. te li ngeen di def lépp. te li ngeen di def lépp. ngeen jiital ci jaamu yàlla. ngeen jiital xam ne àdduna. yàlla ñu ko nattoo. yàllaa ñu bëgg ko. ñu bëgg ko. Eh, ñëpp neexuta mucc. neexuta mucc nag. am na suñu kilifa gu baax sëñ Saliou moom sëñ Modou Moustapha. am na suñu kilifa gu baax di sëñ Saliou moom sëñ Modou Moustapha. daa yaa daa nekkoon daa nekkoon ku xakim. daa nekkoon ab xakim. danaa wax ne. danaa wax ne. bëgg àdduna de. bëgg àdduna de. lu jafee mucc la. lu jafee mucc la. ñun ñun bëgg àdduna. ñun ñëpp ñoo bëgg àdduna. ku nekk na nga ko bëggee rek. ku nekk nag ak na nga bëggee àdduna. da ngay gis ku kuy nuru ku dëdd àdduna sax. da gis sax ku lay nuru ku dëdd àdduna. te fekk dëdd àdduna ga. ak bëgg àdduna ga. ak bëgg àdduna képp. ndax bëgg nit ñi xemmeem ko ca. ndax bëgg ba topp ko ca. kon li am solo rek. kon mooy ixlaas. mooy ixlaas. mooy sellal. mooy sellal. ndax sellal. ndax sellal. mooy mooy tasawuf. mooy tasawuf. mooy te te loolu nit bu gëmee boppam sax. te nit nag bu gëmee def. daa boo ko defut. day mel ne da ngaa complexe. day nag bopp. wala sax bopp. moo damay wax ne. moo tax man nit ne. lépp nekk rek. lépp lu solo. ndax waxi nit ñi solo. sëñ Abdoulaye dinaa wax ne. sëñ Abdoulaye wax ne. nit ñi de lépp loo xalaat ne ñu ngi koy wax. nit ñi de lépp loo xalaat ne ñu ngi koy wax. na la wóor na ñu ngi koy wax. na la wóor na rek ba ko xalaatee ñu ngi koy wax. ndax la nga xalaat la nga xalaatu sax. ndax la nga xalaatu sax. seen xel dajay dem. seen xel dajay dem. kon nit ñi kenn mën def lu leen ump. kenn mënut a def lu ëpp leen ump nit ñi. kon nag li am solo rek. kon daal li am solo. mooy gën a góorgóorlu. mooy gën a góorgóorlu. gën a kaweel yitte ji. gën a kaweel yitte ji. gën a góorgóorlu ci pasteef ci suñ pasteef suñu diggante ak sëñ Tuubaa di ko sellal te di ko sellal bu rek mu gàttal ñu mu si ndax li lépp moom sëñ noppi na ci ndax li bi noppi na ci ndax gii kat ndax maa ngi koy wax ay borom xam-xam yu fi ñëwoon keroog mi koy wax ak ay borom xam-xam yu fi ñëwoon ma mu ne leen ba sëñ bi di bind Matlabul Fawzayni. ba Serigne Touba di bind Matlabul Fawzayni. lu ci ne mu wax na mu ko bëggee. lu ci nekk mu wax ko na mu ko bëggee. day mel ne tey jii. day mel ne tey jii. ku la yóbbuwoon ci àll ba ci ginnaaw Tamba. ku la yóbbuwoon ci àll ba nekk ci ginnaaw Tamba. wala ci wetu Ceddu. ci wetu Ceddu. ci digg gaynde. ci digg gaynde. nga nga nga nga ngay ngay def say xayaal. ngay def say xalaat ak i xayaal. di wax ni ko bëggee. naan bëgg naa fi dëkk bi mel nangam. naan fi bëgg naa dëkk bi fii mel nii. booba sëñ bi basiratu la am. booba moom sëñ bi ab gis-gis am ci daa wax gis bi dafa neex. te ndax looloo taxoon sëñ Abdou Lahad naan gis bi dafa neex. moo tax lépp bind na ko. ndax moo tax lépp gis bind ko. moo tax nañ xam ne. moo tax nañ xam ne. lépp lu mu bëgg ci dëkk bi rek bi dana kenn mënu ko te am. te kenn mënu ko te am. xanaa kay tawféex ji rek. xanaa ji nag. mooy mu jaare ji sa loxo. mooy mu jaare ci wax ne. sëñ Abdoulaye danaa wax ne. liggéeyal sëñ Tuubaa yomb na. ndax day féetewoo coono ba. ndax sëñ Tuubaa day ba. bàyyee la sag ba. moo tax dëkk bi. moo tax dëkk bi. sëñ Tuubaa noppi na ci. sëñ Tuubaa noppi na ci. ñaan na ko boromam. ñaan na may na ko ko. may na ko ko. lim fi bëgg lépp dana am. lim ma ne ko Cheikh Mouhamadou Moustapha. mooy na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha man man Cheikh Mouhamadou Moustapha. nee na mu ne Cheikh Mouhamadou Moustapha. dafa nekk ci béyti. daa nekk ci béyti. booba Touba Toumaranke na. booba Touba day Toumaranke gi bari na. juróom-ñaari kër wala fukki kër ëpp. li fi nekk ëpp fukki kër wala juróom-ñaari kër. am kuy yëkkati xasida. am kuy yëkkati ak xasida. wajhal bihi daariya. wajhal bihi daariya. kal madina. kal madina. barakatan. barakatan. war kaabatal masuna. war kaabatal masuna. kooka ne tekk. kooka ne tekk. xam nga ñoom dañuy tontum xel. xam nga ñoom dañuy tontu am xel. mu ne ko mbaat da koo sikki sàkka mu ne ko mbaat li ko yëg wax da koo sikki sàkka waaji na ci yàlla waaji ko man de li ma sëñ Tuubaa wax li ma sëñ Tuubaa wax ma teg ci sama bët ma teg sama bët bii li ma wax te gisaguma ko li ma wax te gisaguma ko moom laa gën a gëm bu ma yoroon kaasu café bu ma yoroon kaasu café mu wóor ma ne lii kaasu café la bu ma téye bu ma téye la ma sëñ Tuubaa wax gu ma laa gën a gëm. la ma sëñ ko téewu euh, kon nag loolu nag. loolu nag. kon ñoom jaayante gi amoon seen digg sëriñ bi. ñoom jaayante gi amoon seen diggante sëriñ bi. ba muy xalaat di indi raay bi. ba muy xalaat di indi raay bi. boo nit ñi dañoo jàppoon day gént. booba nit ñi dañoo jàppoon ne nit ñi dañ jàppoon ne. nit ñi dañoo jàppoon ne. day gént. day gént. Cheikh Mamadou Fadel. Cheikh Mamadou Fadel. ba muy wootee. ba muy woote. ju màggal Tuubaa gi. màggal Tuubaa gi. di àggale jumaa ji. di àggale jumaa ji. booba jafe na. booba jafe na. boobu yoon wi boobu yoon wi yombut. de. ndax bu ñu àggee ci nawet. ndax bu ñu àggee ci nawet. liggéey bi day taxaw. liggéey bi moom day taxaw. ñëpp dem ci tool yi. ñëpp delluwaat ca tool yi. dem bayi. dem ba tool yi jeex. ba tool yi jeex. kilifa gu ne. leetar fekk la fa nga ne. sab leetar nag fekk la fa ne. moom mii maamam jàmbaar la ci woon. nee na moom mii. sëñ Modou Xaban la ci woon. jàmbaar la ci woon lool. nee na sëñ la ci woon. ku ci ne dañ lay sas na nga joxe nangam. ku ci nekk dañ lay sas na nga joxe nangam. te boobu yoon yi mbay rek la am. te boobu yoon yi amuñu dara lu weesu mbay. nañ leen tabaxee jumaa kon rek rawat na léegi nga xam mu yaay a sotti. ci biir kon nag léegi ñun kay ak cant rek bi mu sant yàlla rek. te Serigne Touba. te Serigne Touba. li Serigne Saliou daa wax naan suñ borom da koo far. li Serigne Saliou daan wax ne sëñ Touba de yàlla da koo far. Cheikh Mouhamadou Mountakha keroog bi may joxe ndigal ne naa woote Cheikh Mouhamadul Mountakha keroog ba mu ko wooyee jox ko ndigal na ko na woote. booba ñëpp a jaaxle. booba ñëpp a jaaxle. tool yi tàmbalee lax. tool yi genn wàll lax. ñëpp jaaxle ci ndox mi. ñëpp jaaxle ci ndox mi. mu santaane. mu santaane. nee ñaan suñu borom. nee nañ ñaan suñu borom. toroxlu. toroxlu. te eh, def tawasul ci sëñ bi. te def tawasul ci sëñ bi. te bàyyi lépp ci loxo suñu borom. te bàyyi lépp ci loxo sëñ bi. in aataytani in aataytani fa shukru fa shukru wa in manaata wa in manaata faridan wa sabru bu yàlla wàccee ndox mi nee na bu yàlla ndox mi ñu xam ne daa gën ci ñun waaye gis nga ba mu ko waxee rek waaye dem na ba ñëpp di ñaan naan na ndox mi taxaw dem na sëñ bi ñëpp ko waxee <laughs> kon nag kon nag kon nag mi ngi noonu sëñ Tuubaa kon nag suñ borom far na ko. suñ daaw bi sëriñ bii di woote bis bii. ñëpp jaaxle woon. ñëpp jaaxle woon. ndax corona bi. adduna mu mu woote ci diggante bi. mu woote ci diggante bi. ñu ne kon màggal gi jëlal nañ ko. ñu ne kon màggal gi jëlal nañ ko. ñu jógee ci lépp wàcc. bañ ci jógee lépp ci corona far dem. jeex tàkk. gi jàll. màggal gi mu yëkkati ko waat. mu yëkkati ko sëñ loolu moom sëñ bi la. loolu moom sëñ bi. mu yëkkati ko waat mu yëkkati ko waat mu wootewaatu bis mu wootewaat ak bis am yëg-yëgum ne Cheikh Ibrahima la koy jagleel am yëg-yëgum ne bis bii Cheikh Ibrahima la koy jagleel wala wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar bañ ci jugee bañ ci jugee mu jeex ci àdduna si mu far jeex na ci àdduna bépp te te nit ñi dañuy fàtte te nit ñi kat la benn borom xam suñ suñ sa lool da ko daa wax nee na sëñ Moustapha Abdourahmane loolu da daan wax ne ku bëggoon sëñ Tuubaa ku am na kilifa goo xam ne daa wax ne. am na xam ne daa wax ne. jaaxal nañ ma. Sénégal jaaxal nañ ma. dañuy dégg gëm. dañuy dégg gëm. gis weddi. gis weddi. dégg diw dégg di yàlla ci barab. dégg mel benn waaye nitu yàlla la barab. nga gëm ko. nga gëm ko. nga gis Serigne Touba mu jëf. nga gis Serigne Touba mii di nitu yàlla jëf. nga weddi nga weddi ko. dara am ko rek. waaye nag. waaye nag. Serigne Touba xatalul mbiram. Serigne Touba de moom xatalul mbiram. ku ko bëggee tàbbi nga ci biir ku bëgg sëñ Tuubaa ak foo ko bëggee rek tàbbi nga ci biir sëñ danaa ko jox mu tëj nee danaa ko jox mu tëj ndax lii may wax da ciy seere ndax lii may bëgg wax da ciy seere Mauritanie Mauritanie buñ fa demee buñ fa demee dañ dañ ñuy wax ne dañ ñuy wax ne dañ ñuy wax ne dañ ñuy wax ne Serigne Touba am fii Serigne Touba am fii ci Mauritanie amu ko Sénégal. amu ko Sénégal. ndax Sénégal am na ñu fa gëmul sëñ bi ba nga ni. ndax Sénégal kat am na ñu fa gëmagul sëñ bi ba nga ni. Mauritanie nag. Mauritanie nag. sëñ Touba képp lañ dëppoo. du sëñ Touba képp lañ dëppoo ñoom ñëpp. ña fa doon ni Tidiane. ña doon Tidiane yaa. gëm nañ sëñ Touba. gëm nañ sëñ Touba. ña fa nekk Xaadir. Xaadir ña fa nekk. gëm nañ sëñ Touba. gëm nañ sëñ Touba. ña fa nekk Saasaliya. ña fa nekk Saasaliya. gëm nañ sëñ Touba. gëm nañ sëñ Touba. ña nekk ci yeneen tariixa noonu. ña nekk ci yeneen tariixa noonu. kon tariixa bu waay mën a nekk daal. maase nañ dëppoo ci biirum sëñ Touba. kon nag loolu. kon nag loolu. Eh, sant yàlla bu baax rek. ak sant yàlla bu baax. bi mu ñu booleeg moom. bi mu ñu booleeg moom. te xam ne la mu waxoon rek. te xam ne la mu waxoon rek. radiya anni. radiya anni. sibtuhul jilaani. sibtuhul jilaani. alayhi ridwaanu. alayhi ridwaanu. la si alaani. la si alaani. radiya anni. radiya anni. sibtuhu abul xasan. sibtuhu abul xasan. alayhi ridwaanu. alayhi ridwaanu. yuxalidul xasan. yuxalidul xasan. radiya anni radiya anni sibtuhu tijaani sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mubiinil jaani alayhi ridwaanu mubiinil jaani waaye lam ca teg nag moo ëpp solo waaye nag lam tegaat ci ñetti bay yooyu moo am solo man lam yakun man lam yakun radiya anna fal karim radiya anna fal karim kon ku ëmpale mbiram itam sëñ Tuubaa naa ne ku la sëñ Abdoulaye waxoon la sëñ Abdoulaye waxoon waa kaw ak xam nañ mbiram kon kon kon kon kon kon jërta jër jër diis dara diis yoon yi moom day dox aw yoon la tudd te li koy doxalit te li koy doxalit ci borom la aju ci borom la aju aju ci ñun ñi nekkul ci loxol kenn ci loxol doo doonuñ ci dara dara dara doonuñu ko ci lépp sëñ bee ko doxal boobu lépp sëñ bee ko doxal jërëjëf day wax loo xam ne rek day jëriñ nit ñi loolu nag rek moo am solo euh, loolu yi mu wax nag ci centre bii ñuy wax tey wax na dëgg man dama ci am seere ndax bi nga xamee ne ñu ngi koy def ñu ko xalaat waxtaan bi dañuy waxtaane ci yu bari muy am ay xalaat yu bare bari yu muy am ci dëkk bi ñu di ko waxtaanee bu ñu génnee nekk ci réew mi mbaa nu ànd dem génn bitim réew surtout foofu ngay gën a mën a waxtaane sax li nga bëgg waaye projet yu bare bari yu muy xalaat lii benn la ci rek ci yoo xam ne day xalaat ci ndaw ñi surtout xale yi ndax Tuubaa ku fi nekk te doo xalaat ci mbirum gone yi day mel ni dara ñëw bu fekkee yaa ngi xëy di xool am ak njaboot yow sa bopp xam njaboot yi ngay jàkkaarloo xam li nga xam ne mooy mustaqbalu réew mi ëllëg avenir nit ñi ëllëg booy xel xale yu ndaw yi sa yaram yi day daw ndax yow da ngay xam ne ñii naka la ñuy def ba tekki dara ëllëg naka la ñuy def ba nekk ay nit yoo xamante ne bu ëllëgee ci si biir danañ nekk ay citoyen yu baax citoyen bu baax mënut am te jàngut moom loo muusa ka ak loo mën a def te jàngoo bis dana ñëw nga rëccu ñàkk a jàng mooy lii muy wax ba wax li sëñ Tuubaa waxoon ci ñii tere jàng ak ñii fexe ba nit ñi duñ jàng te loolu dafa bari loolu booy xool gone yu ndaw yii da nga leen di yërëm ndax fi àdduna jëm ak ñoom fi ñu toll ak xel nit ñenn ñi fi ñu toll da ngay dem ba mu jàng yow ci sabab nga ne waaw lii moom fu ñu jëm moom nag muy kii xalaat bi bu ne di xalaat nan lañuy def ba ndaw ñooñu ñu fexe ba xam-xam dugg ci seen bopp métier dugg ci seen bopp ndax ñaar yooyu rek moom sol am xam-xam am métier nit ki lu mën a am na jàng lu ne na xam lu ne waaye amoo xam-xam boo mën a yoree dara amoo métier moo mën a sukkandikoo yow sa nekk ci àdduna dana nekk lu xat lu metti te loolu àdduna sëpp xam nañu ba tax na loolu moo taxoon centre bii mu xalaat ko bi mu koy xalaat booba maanaam kenn kenn ku ko xalaat ci dëkk bi ku ma xam amu ci surtout nag centre bu jëm ci wàllu informatique informatique mooy xam-xam bu bees bi nga xam ne ku ko xamul ku ne boroom xam-xam yi léegi sax dañoo wax ne alphabet nit ki nga xam ne jàngu mooy ki bu njëkk mooy ki nga xam ne bu tiimee dara du ko mën a jàng léegi nag jamono bi toll nit ku jàngul informatique mooy ku jàngul foofu lañ toll ndax léegi boo demee ci réew yi dootuñ la jox bi ngay bind dootuñ la jox dara dañ lay jox ab machine rek ne la bindal li nga soxla ku ko mënul ku ne moo tax suñu bokki moodu yi ñoom mën nañ maa seere ci li may wax nii boo demee fu mel ni Italie wala fu mel ni France wala fu mel ni feneen moodu moodu yi fa doon dem bu jëkk dañ doon dem am liggéey ndax booba dañoo soxla woon liggéeyu doole tey nag liggéeyu xel ak informatique bii lañ soxla kooku mënul ku ne boo demee loo bari bari loolu amoo fa liggéey problème bi que li ko lépp loolu dong la Sénégal foofu lañ jëm képp koo xam ne dem nañ ba ca kanam sa doom yi jàngaloo leen loolu yi sëñ bi waxoon nag gàcce rek ak ñu mere la foofu lañ jëm yow moo tax nag sëñ Bas mi ñu ngi koy sant di ko gërëm ci xalaat yi mu am lii benn la ci rek ndax boo gisee tey jii xale yi jàngee informatique fii man xam naa ci ñu bari man fii ci daaray Kaamil rek bi ñu bëggee informatisation def ko dañoo indi fii lu war a mat fukki xale ak ñaar ñu formé leen ñoom ñëpp ñu am seen diplôme ba moo tax ñu dimbale tey jii ci yu bëree bëri yoo xamante ne du ko daan jëggaani di ko wuti ci am nañ ko lee te loolu centre bi mënu ko may kon loolu nekk na lu am solo loo xam ne am mun mu ci wax ñaareel bi pour bañ a guddal ñii nga xam ne ñooy waa daayiraan bii nga xam ne xam naa leen bu baax ndax dafa boole woon ak ñoom ñu nekk fee ci Dakar waaye di fa yëngu ci lu ci wàllu xam-xam tey boo demee ñoom ci seen centre bi nga xam ne ñoom moom lañ def ci caaro yi dangay ngay te ñoom xale yi tey ñu ngi tàmbale woon di jàng alxuraan ci jàng alxuraan lañ tàmbale woon mais xale yi dem nañ ba egg ci tey ñu ngi leen baccalauréat waxuma baccalauréat arab kese de parce que nit ñi bu ñu ñëwee école arabe rek ñoom seen xel fi ñuy jëkk a dem mais baccalauréat arabe déet xale yi léegi baccalauréat arabe français bi dañuy boole def candidat libre fekk mbakk ñoom yëpp bokk ku mën a dem wii amatul baccalauréat arabe ba français loolu daanaka presque jeex xanaa ki mu neex nga xam ne yow dangaa bëgg a def arabe te waaye ki bëgg a def ñaari langue yi da koy def ki bëgg def benn bi da koy def ñoom nag seen école bi mi ngi tàmbalee fu suufee bu sëñ bas boobu fa ne tey jii dañuy dem bay def brevet baccalauréat yem ak ñëpp te yi ci bëree bari ay trois ans lañ koy def maanaam brevet ci trois ans lañ koy def xale yi dañuy seet njàng mi ba nga xam ne léegi am na ñu bëri yoo xam ne dañ ko doon jàng ci programme yi amul benn njëriñ nga fexe ba dindi ko xale yi boo ko dindee te kenn du ko def examen bu ñuy def examen di daw seen i morom Touba bii tey sëñ Mbacke xoolal rek ngi fi am bac ren ren laa wax rek ak daaw ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne mosu ñoo toog ci bangu France ba nga école français laa wax mosuñu caa toog te dem nañ ba jiitu ñu toogoon ci ba nga yi man mii duma mën naa wax am naa ci mbooloo mu dul jeex maa ngi yow sama école boo xamante ne ren jii am naa fukki nit ak benn yoo am seen baccalauréat mosuñoo dem Mbàkke ñii am nañ seen brevet kon loolu lépp lu muy wone mooy dëkk bi moom mi ngi dox na ko Sëñ Tuubaa ñaane woon mi ngi dox ci wàllu njàng na gën a dox nag dafa des des na nag na gën a jëm ci kanam waaye moom mii de xelamam ci guddi xelamam ci bëccëg saa su ne mi ci xalaat xanaa li mu bëgg lépp kay ci xalaatam ak ci xelam moo mun moom la mun a gut a def benn yoon waaye mi ngi xalaat ci gone yi lool mi ngi xalaat ci gone bu baax a baax te képp kuy liggéeyal dëkk bi da ngay xalaat ci gone yi ndax maanaam sëñ bi métier yi baax na waaye nag gone gu ndaw la sëñ Tuubaa waxoon rek dafa mel ni mag mu ne gone de loo ko def loolu jàng loo ko yàq mag it loo ko def loolu jàmm loo ko yàlla yàlla ko waaye gone gu ndaw de bu xëy jëm ca jàngukaay ba kenn xamul fu mu te loolu bari na ci dëkk bi kon nag sëñ ñu ngi lay sant di la gërëm di la gërëm it ci sa daayira bi ñii lay man mën naa seede borom ko sëf ne gone lañ yoo xamante ne liñ fiy liggéey macha allah man mi ko xam xam naa li ñuy def kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant lépp yow lépp sa taxawaay la lépp yow du kenn man xam naa say xalaat xam naa fi nga jëm xam naa li nga bëgg da nga ci dut bari nag ay wax di wax rek di publicité waaye man xam naa jéego yi ngay set lii benn ay jéego yeneen a ngi ñëw incha allah kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di gërëm mbooloom mi ñëpp euh, di ñaan ci daraje yi Cheikh Abdoul Qadir mi tax ñuy def màggal gii aajo yëpp faj lépp lu waaye aajo woo boo ko ñaanee ci màggalu Sëñ Abdoul Qadir gi da ko am